yaakaar naa ne jaxaay jóg ñëpp jóg kii bu jógee ndakaaru jóg Fass Benno Colobane Gueule Tapée ah muy ñaari jaay prek nag combat ja bii moom combat jaay prek laa ko tuddee Papa Siteu lay bëggee. waaw maa ngi lay ziar. Mhm. di wax bisimilah laa wàllu yàlla jërëjëf borom Touba jërëjëf borom mhm. di nuyu presse bi fi teew yëpp. Mhm. di nuyu mafia Bali 11 bi ma fi àndal. di nuyu jaxaay bi ma jógee. bu ko dalee jaxaay Siteu gendarmerie. douze b onze b bàyyi ma fépp jaxaay un mhm. waaw maa ngi bégg ñëpp daal di leen nuyu di wax seen doom am na combat seen rakk seen xarit seen mhm. lépp mhm. am na komba di woo ñëpp ci combat bi nag waaw bàyyi ma kenn am na combat nag ki muy bëre nag mooy Boy Plateau plein Ada Fass la nag ah jaay perek la nag maa ngi lay bëggee waaw onze billah bisimilah inna wala yàlla ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di sant sama papa di si teg naan xat fax ak kabala xat basa fadala fa duru wala wa naf su jaay di bëggee ndakaar bu ma jugee xam nga di bëggee adduna di bëggee waa ñaacokeer fu ma judoo waa fas Colobane Gueule Tapée Médina bàyyi ma kenn ndakaar njaay jël joob yëpp sama dëkk xam nga waa Koki di leen bëggee bu wér waa Louga tamit bàyyi ma kenn sama bàjje neeg sama maam yeeg ñëpp ñu may ñaanal di nuyu sama sëriñ yëpp képp ku may ñaanal rek maa lay char di la màggal bu baax a baax a baax di nuyu sama mbokk espagnol yi ah di naan yo pidan peranda todos hay que rogar por mi coyos mira la victoria waaw yo ay dar xam mi madre agradezco a todos mi ciudad xam nga nga war a bëri xam naa ko kay bu baax ki de waaw moom la rek yàlla baax na lu tax jël ko waaw war ko jël ko duma ko daan ko rek incha rabbi surtout mii kii du dërëm kii moo ñurub ñarab mu xam ni man may guney farambacee cuku cuku na dàq daw gën a gaaw du ma daw te ku daw ma ree la ki du ma ak moom sax wajee fi ne nii rek ah dégg nga ko jege si ma jege si ma dégg nga lim la wax bookon waaw xam nga man li may wax ak moom bëriwul parce que kii ñi xam làmb tey gëstu làmb xam nañu man ak moom du ñu ay naataango combat la nag barke Serigne Touba Mbacke du nag bu ko neexee mën naa ko bàyyi ak wax ji combat bi laaj sama diggante ak wax dama koy jël teg ko nee parce que combat bi dafa li ma ci war muy jëf Baye Fall yëpp loolu lañ ma wax mbër soxlawuñu wax soxlawuñu dara maa la gën a doon Baye Fall foofu bu ma jaxaseeg benn Baye kenn xamul la sama koñ maa tax sax ñu lay mi ñu min tur nga naan ay du ñu ay naataangoo ci làmb man foo ma waaye yow ku ma déggul xam nga ma barki alxuraan xam nga affaire du ay fii yow xam nga ni daa am nu mu demee sax moo tax mu demee nii mais billahi wallahi o contraire man maa ne man ak du làmb te billahi wallahi wa ngir yàlla leen rek laa la ñaan bés ba loo bëgg ak moom bés ba lu may def sama ma nar a def mais leen daal xam naa mu nga téye moo xam ne li mu ko li xaama a bandi foofu li mu ko li xaama cukkali xeen bilaay Boucar waaw parce que Serigne Touba laa la watal kii hmm. lii la am ci làmb ji dama koy bàyyeeg wax ji parce que xamul tax hmm. man dafa am lu war xale laa ma am ci yu ma jógee yu bari hmm. xam nga Baye Fall yónni ma yàqamti ma barki seriñ Touba Mbacke maa ngi woo ñëpp Boucar bàyyiwuma kenn waaw ñëpp ñu war a jàpp ci combat maa leen woo ku ci mel ni suñu grand Moutali Fall Seri Mayrem Sarr maa ngi koy woo bàyyiwuma kenn di woo grand Assane Diop xam nga di woo suñu grand yëpp ñoom alaaj nongo 100 pour cent jaxaay bi di woo suñu chef de quartier di woo maire jaxaay mm. waaw di ko woo bu baax muy jaane ñu koy woo mu jàpp si combat bi ko sa doom am na combat mm. di woo nuyu sama waa fag si club ñi nga xam ñoo nekk jaxaay muy Ahmed di président bi ak ñoom bay ak sama gars yi di nuyu wax di gërëm nag bale onze bi bu baax aw ma seen fay sama boy yi mm. dañuy sonn si man barki Serigne Touba Mbacke kon dama am lu ma leen war a indil am lu ma leen war a delloo jege sil koy woo man damay woote rek parce incha allah war a bés baax maay gërëm damay wuyoo sama tur quoi xam nga di woo waa Fass fu ma Bamba Fall maa ngi lay woo ci làmba ji Makitara waa Ultra Ada Fass bi combat bi seen combat la asin to sama njaago bi roo ñoom Seexu Maane gaa yëpp comprendre di woo jamalien yëpp incha allahu rabi ma jàpp ko yóbbu ko jamal jëlee ko jalal incha allahu rabi di woo ñëpp nag képp ku may jàppale di wax sëñ Fall ah ji sa làmb la am moo joon làmb ji sa làmb la waaw maam seeni la ah, grand sal digee làmb ji sa làmb waaw di woo ñëpp képp ku may doon jàppale rek maa lay woo Abakara làmb ji tamit waaw sas nañ loxo. di woo ñëpp di wax su xama rek na ma gars yi ñaanal jàppale ma man du kii. Mm. kii daa am si kii kii tey sañu sax wax parce que am si mu jóge kon jeex na ca rendez-vous le 18 ah. Mm-hmm. nga xam dañoo dem final di leen ñaanal yàlla yàlla may leen dam mm-hmm. muy ASC Jamal. waaw di nuyu waa Kër Mbaye Fall ñoom Kara Noé di nuyu waa si Sikamba waa Jamagan sama grand gaawaan doomu ndeyu Sita. di woo Abdou Seck bu baax si combat bi. di wax nag combat bi sama benn géwal laa ko tuddee mu galas tama waaw di géwalu 11 be di géwalu fépp ñoom aas ñoom ñëpp maa ngi ni di di bëggee daal baale yu 11 bi rek di leen wax nag waaw ñi ngi ñëw incha allah indi leneen lu bees sax kii du maa ngi moom sax barke yàlla dëgg wax ban la